Salut les amis de e-Sport TV, merci encore Gaël, la confiance renouvelée, merci de des likes, merci de des abonnés, merci également de baisser les commentaires, également de partager vidéo yi di wax également bépp doomu aadama bu dëdd àdduna suñu borom yàlla na ko xare àjjana fi daw si ñi nekk ci hôpital yi tëdd wala ci kër yi suñu borom fëgg seen bopp ñu wër ñi nekk ci kaso yi suñu borom génn leen fa également ñi dëddu àdduna comme je dis ñu xare leen àjjana fi daw si mbokki Sénégal yi fépp foo leen mënti nekk ah, ci gox yi gën a sori Sénégal Fouta Bakel Touba Tivaouane Dakar Thiès Louga bàyyiwuñu benn gox ah, ci Sénégal Afrique également bàyyiwuñu benn gox ah, képp muy Guinée Mauritanie Cap Vert et Ghana fait gars fait Nigeria. Nigéria fépp Sénégal nekk ñu lay jajeufal ñu nek tugal également Europe États-Unis Italie Espagne Brésil ñëpp ñi wax gars on avance ensemble ñoo gagnandoo ensemble actualité bi gars yi on va parler de Aliou et son système qui a tenu ses promesses mais aussi dinañ wax ci li nga xamné également gay mom moy donc ñi di wa Égypte porter plainte ak aussi la xew ci Nigéria jëm ci actualité bi d'abord yene kay bi di stade ñew ne la série sur le gâteau Mendy tranquille Sabali brillant Sadio décisif loolu yéen kay bi di stade bu Demba faro voir wax record Mor Bassignan ak Bakary Cissé les Lions s'offrent encore les pharaons wax aussi li nga pour pour Ronaldo aussi mi nga xamné coupe du monde wax aussi ci yéen kay bi aussi di best bi nos de immédiat les Lions Émir au Qatar les pharaons domptés à Dakar le stade Abdoulaye Wad en laser et chaudière Aliou Cissé on ira au Qatar avec une grande ambition Sadio brille Salah s'effondre et c'est un gars kay bi Le Soleil les Lions décoiffent les pharaons le Sénégal bat l'Égypte 1 but à 0 3 buts à 1 tir au et s'est qualifié au mondial Qatar 2022 Yannick kaay bi combat du dimanche Sanctions financière le CNG charcute à homme 2 euh, euh, plutôt 3,4 millions à B52 également 1,2 millions. VAR bien VAR VAR spécial équipe nationale du Sénégal spécial actualité là di wax aussi gars yi ñuy jaajëfal ñu aussi mbokk sénégalais yi nga xam jëm ñu ngi doon stressé pour match bi jëm ci né demb gars yi na Talata talaata jam ñaajo jam ñaajo dans l'histoire du football sénégalais avec nos confrères de Tagat SN Talata jam ñaajo au Sénégal mais aussi gars yi comme on dit les camps il est devenu aujourd'hui le premier joueur sénégalais bi nga xam mo moo njëkk a en match officiel ce stade jam ñaajo Boulaye Dia Boulé Dia, comme Nimoko Touré, mais aussi en hein, information, le Ghana qui se qualifie devant le Nigeria. Hein. Ghana, par exemple, tembo 0 but partout, mais faire de tembo 1 but partout. Bon, Ghana a qualifié un but à l'extérieur, mais Tio amna fan dans Nigérien, nous avons terrain bi yap ki, mais sax nañ amna ben officiel médecin bo xamné wa kaf la dafa ñak bakanam lool nak aussi nek lu ñaaw ñukoy ñaawlu parce que li nek revanche bo xamné rafetul ci Afrique. Mais aussi hein, du côté de la Tunisie, Tunisie bi dem dafa tembo mom ak équipe bi di Mali. Malheureusement, nos frères maliens qualifient la Tunisie mo qualifié gannaaw ba nga xamee ne àllale Tunisie mo leen daal di jëm ci aussi li nga xam mo Cameroun les lions indomptables du Cameroun au bout du suspense dem ñom ñoo dóor Algérie ca Blida donc le chaudron de Blida dem nak wa Algérie dañoo dugal yaakaar ne match bi jeex ñuy temps ba ñu rey temps nag ñoom euh, Cameroun yi ñoo jooyloo ki nga xam ne mooy Jamel Belmadi malheureusement Jamel Belmadi également gars yi moom jël na décision ne fay arrêter day démissionner ak sélection bu euh, Algérie wax na aussi ne arbitre yi bon arbitre respecté wuñ leen et tout donc par rapport au temps de jeu mais ma li wax moy dañoo dugal rek seen jeu bi tëdd ci suuf di rey temps far yàlla ba def ni ñuy def rek dernière seconde yi les Camerounais dugal le Cameroun de Samuel Eto'o fils l'un des meilleurs joueurs africains du monde le président du FECAFOOT Samuel Eto'o bi nga xam ne def na lu bëri moom qui a cru en Rigobert Song Rigobert Song bi nga xam ne également dafa war a ab wooyee léegi Aliou Cissé tonton Aliou ndax rasta yi ak stratégie bi moo tax tey Rigobert ñëw moom boo xam ne leer newoon na ne ku ñu ko xam ne yaa ngi ci danger nekkoo ci danger waaye boo xamul ne yaa ngi ci danger si nga nekkoon ci danger gars yi naan kii dafa dof fekk wax na li muy wax mais aussi nos frères du Maroc yoon aussi ñu nuyu suñu sénégalais yi nek ca Maroc et tout wa Maroc également qualifié. Donc, les liste équipe africaine, il y a qualifié cinq équipes africaines, dont le Sénégal, champion d'Afrique également, euh, également d'une petite Coupe du Monde, Ghana, Tunisie, Cameroun, Maroc, équipe qui gagne, nous avons fait non. Et si, nous avons les résultats, mingini, Sénégal, Mordor, Égypte, 1 but à 0, Turobi, 3 buts à 1, Nigeria, Ghana, nous Tembo, Algérie, Cameroun, Mokodo 2 buts à 1, Tunisie, Mali, Tembo, 0 buts partout, Maroc, Dour, Hervé Congo, 4 buts à 1, mais aussi Cristiano Ronaldo, CR7, Gaï, Bimoinek, dernière Coupe du Monde, Ben Don Nedodem, CR7,

officiellement ñi ñoo qualifié coupe du monde di xaar vendredi li nga xam ne nag moom mooy tirage bi xool Sénégal ban ban équipe lay dajeel donc équipe yaa ngi nii donc gis ngeen Sénégal mi ngi mais aussi gars yi ndax yeewu ngeen ak jàmm ndax yeewu ngeen ak jàmm ndax kii moom yow na am na kuy nelaw ba léegi ci côté bi ah am na koo xam ne mi ngi nelaw ba léegi ci côté bi comme ni ñu koy waxee rek ah Égypte dee na Égypte dee na suul nañ ko ca pyramide ya Égypte dee na Égypte dena suul nañ ko ca Premier ak Carlos Queiroz migay. aussi malheureusement aussi moom mooy il fait partie des dix meilleurs entraîneurs du monde actuellement il fait partie des premiers entraîneurs à avoir démissionné en Afrique Mom ki nga Carlos Queiroz gannaaw mondial bi donc gannaaw barrage mondial Égypte ay gars yi porté nañ plainte nee nañ bon Sénégalais Le loolu nag dama koy ñaawlu mooy xeer yi ñu doon sànni seen oto bi waxoon nañ kenn sànni xeer mais ñoom nee nañ lii donc dañ koy ñaawlu mais dama leen fàttali ne am na lu xewoon fële gars Égypte mais d'abord, abord Aliou Cissé qui a mis aujourd'hui une équipe boo xam ne équipe yi buñ ci yokkee tuuti par la grâce de Dieu humilité avec humilité le Sénégal pourra aller loin parce que également liwa Égypte dañ koy comme on dit retour à l'envoyeur comme on dit fay un naar bi laseram naar bi gars yi nañ naan mais Sénégal parce que le Sénégal va dominé match bi de bout en bout. Premier mi-temps avec déjà possession de balle de 63% là contre 37% gars donc non plus plus d'autres et ay euh, tir corner et tout mais également hein, Dumble Sénégal qui a montré que est les ñu def def 15 premières minutes pour gagner il faut que ñu teel le et on l'a fait grâce également à El Tactico qui n'est plus donc Bounam Rasta mais El Tactico aussi c'est le digne fils du Sénégal le champion d'Afrique le futur champion du monde on l'espère allez ici c'est coaching gagnant parce que dafa football qui ba on va wax gars non c'est-à-dire c'est-à-dire gars il ma wax je n'ai rien contre Bounassa parce que c'est un excellent joueur mais gars Quel doit du Ferrari Avec li nga Charette, ne mooy charrette Ferrari avec charrette parce que Dembou défensivement il a été extra extraordinairement mais monstrueux il a été également offensivement précis il a fait des centres millimétrés techniquement Sabali est bon techniquement Sabali est bon défensivement Sabali est bon On a décroché à day à l'intérieur et suy décrocher des day des dédoublement des créer profondeur et là lañu ñu gis donc chaque fois bu décrocher rek égyptien dañ koy topp moom espace il les a laminés et techniquement il a été propre sur Sabali et que dire de ce duo gars Sabali à droite Saliou 6 à gauche Sabali à droite Saliou 6 à gauche Qui vous gauche. Qui signale droite qui bu corner droite qui signale gauche parce que ñoom ñaar aussi kenn di Saliou Ciss gars yi naan c'est-à-dire Saliou Ciss nee naa leen milieu bu équilibré boo amee milieu boo xam day joué ci moom dédoublement yi may ko espace di jouer en profondeur Saliou il est phénoménal Saliou Ciss gars yi wax naa leen ko suivre Saliou c'est un 10 de métier jàmbaar la jaar ñu formé mu nekk arrière latéral démb nag raté na penalty ñëpp ay raté penalty parce que suñu capitaine raté penalty mais Saliou qui a fait beaucoup de bien et gis ngeen li Saliou Ciss di apporté mooy que ne tey gis nga li li Saliou Ciss di un bu milieu bi équilibré de permettre Ismaël Sarr encore demi ismaël Sarr il a resté des occasions il faut a précision mais Ismaël Sarr gars rien à dire de ce gosse, gagne bi wa Saint-Louis vous devez être fier de votre Ismaël Sarr le Sénégal vous devez être fier de Ismaël Sarr parce que Ismaïla est encore hier comme match aller bi comme match retour pour man ñaar match bi ñuy xol mon nek meilleur joueur mais également l'enfant de Bambali Sadio magnifique le meilleur joueur d'Afrique et de Liverpool le patron de Mohamed Salah Sadio Mané Dembe liñ ko joué le repositionnement bi gars il dafa permettre aussi Sadio Mané beaucoup plus de liberté également beaucoup plus de attitude beaucoup plus de vision du jeu moo tax li lii Saybal permettre nañu yeglo Bouna Sa Bouna Sa qui a fait un match correct même bu fekkee ne li wax chaque fois moy déchet yi par rapport au centre bi mais Sadio Mané bu ñëwé imaginer leen ki nga xamné moy Crépin Diatta dellu suñu am ci aile et tout Sadio Mané ci digg bi ce sera autre chose mais boulay Boulé Dia Boulaye Boulaye Dia gars Boulay naan waxon Dia lii ko gars yi ah, modestement Boulay Dia waxon naa avant ñu dem Coupe d'Afrique bi dañ ko jëloo neuf muy nek neuf de pivot di décrocher di centrer di def dédoublement yi gars yi non Boulay Dia Coupe d'Afrique bi def fa dara parce que dañ ko jëloo excentré ñi sétal football di ko seetaan ca Villarreal di ko seetaan ba mu nek Reims xam ngeen ne Boulaye Dia c'est un attaquant c'est un serial killer et li muy dougal ni da koy jox confiance et bu commencé dugal gars yi machallah Boulay Dia a fait hier de l'Égypte une boule un boulet de canon mais également que dire de l'enfant de Pikin de l'Olympiakos, le mur de Gorée, le mur de Pékin, le seigneur des airs, le patron des airs. seigneur sport donc qui dit Pape Abou Cissé Pape accrocheur Cissé Pape Abou gars, Gaï, game monstrueux, Pape Abou Sissé. Pape Abou Sissé, Gaï, aujourd'hui, on a une défense solide. Le gosse, il est expérimenté. Le gosse relance non, relance Baroul. Roland me donne pas Sadio Mané en profondeur. Roland également, aspect offensif, non, il Roland balle de tête. Jeu de tête, il me donne def. Amna occasion, il y a il est bon de la tête, je l'ai dit. Pape Abou Sissé, aujourd'hui, gars c'est un faire valoir donc aujourd'hui une concurrence na am ci poste un petit poste ne tey bu kii manqué keneen bu mais pas aussi rien à dire et que démb il a allégé le roc le ministre le président même de la défense Khalidou Koulibaly encore rien à dire sur Khalidou Koulibaly parce que Khalidou il a mis KO également la défense égyptienne très propre c'est le également c'est le meilleur défenseur du monde Khalidou Koulibaly c'est le meilleur défenseur du monde beaucoup koy télé c'est extraordinaire mais beaucoup ko c'est monstrueux Khalidou Koulibaly mais également que dire de Mur de Gorée et Doumbé Mendy, meilleur joueur d'Afrique, meilleur gardien du monde. Edouard Mendy, encore bis répétitive 6 février, le Sénégal, Le 29 mars, au stade Nyayo. Edouard Mendy qui sauve encore le Sénégal. Et Sadio qui marque encore le but de, délivrance qui nous a délivré. Donc, également, hier. Donc, dit donc, euh, euh, donc, Edouard Mendy rien à dire. Edouard Mendy a fait du Edu Edouard Mendy, Papa, comme on dit, Bojo Bojo Mais aussi, que dire de Gaï à la Alassane Gueye damay jël temps Pape Alassane Nair Sed Gay. le gosse verticalité bi jeu en profondeur bi orientation il est capable de jouer dos derrière la défense adverse bu il est extraordinaire il est phénoménal Pape Alassane Gueye qui nous a beaucoup apporté et que boy c'est le futur du Sénégal day imposé au Sénégal jël len mais également Ahmadou Bamba dingue, Ahmadou Bamba Dang Dien. gosse bibo a mes expérience maturité bi c'est un serial killer day également li nga xamné moy poste d'attaquant bi nga xamné neuf bi Bamba Dien également qui nous a fait aujourd'hui, hier hein, du Bamba Dang parce que gannaaw bañ Final, finale il nous l'a fait encore Boy bi meilleur tireur de penalty du Sénégal actuellement meilleur tireur de penalty du Sénégal modestement ce gosse afa am altruisme ni ko Aliou Cissé waxee moom ak Pap Matar sar ay xalé lañ màggaguñu mentalement xamaguñu dañu soog a nekk équipe mais bu boy taxawee ba ki le Sénégal MashaAllah, allah laf on a une très bonne équipe mais respect également à Cheikhou Kouyaté gars yi ay no ki da dawee fara Cheikhou Kouyaté man la wax di xam moy football Cheikhou Kouyaté gars

Mais aussi, aujourd'hui, les gars, si le Sénégal est sur le toit de l'Afrique et sur le toit du monde, si Sadio Mane a son pied posé sur Mohamed Salah, c'est parce qu'également Dembo Sadio Mane a donné une claque au monde, il y a une claque à Liverpool, une claque aux Égyptiens, comme on dit, retour à l'envoyeur Sadio Mane stratosphérique. Mais également, si le Sénégal a battu hier l'Égypte, euh, Gatien Galama, capitaine des lasers yi ah suñu soldat des lasers yi gars yi ah sama copain bu fekkee yaa ngi may gis wala yaa ngi may dégg copain ñu ngi lay jaajëfal parce que def nga liggéey bu am solo yow yaa nekkoon suñu défenseur central suñu attaquant baa ngi nii nag moom dafa jël liggéeyam trop au sérieux Donc, les supporters sénégalais, merci parce que vous avez été véritablement un 12e homme, un 13e homme, un 17e, millième. loolu leen mënta wax ci sénégalais laser également amuñu safa yow mom, gàcce gala, moom fu ñu la mën di fekk rek nañ la ziar yow moom bu la di jaayee sax instant yi 2000 la jënd laser en tout cas félicitations mais également el tactique aussi, C'est qui montre encore une fois que nul n'est plus meilleur entraîneur en Afrique Aliou Cissé le défenseur sénégalais il est devenu le défenseur de la patrie du Sénégal le roc bi Aliou Cissé décrié Aliou Cissé adulé Aliou Cissé attaqué Aliou Cissé remercié mais aujourd'hui Aliou Cissé également a affirmé au Sénégal d'avoir les deux, meilleurs joueurs du monde Sadio Mané meilleur joueur Edouard Mendy meilleur gardien du monde Edou Mendy Gaï, Niani, Santé, dañuy Alder, carrément Gaï, ñun ñëpp sénégalais dañu war def ni européens yi di def mooy ne suñu joueur bu nekkee fenn amul masta non non c'est-à-dire c'est-à-dire nañu gëm suñu joueur fu leen war a défendre nañ leen défendre ensemble nekk benn say benn bopp parce que aujourd'hui le Sénégal a ça côté actualité Victor Osimhen le joueur du Nigeria même bu qualifié coupe du monde moom lañ tànn joueur du joueur du mois fa nga xam ne mooy ci Italie notamment du côté du Napoli Osimhen donc ak ñi nga xam ne moom la def ci mois de mars bi pendant ce temps également mauvaise nouvelle pour ñi nga xam ne Real de Madrid parce que Carlos Ancelotti testé positif au Covid 19 moom dafa am un bi di Covid 19 mais également ñaan yi ngeen di gis mooy échange bi nar am ndax tey ki nga xam mooy Asensio moom la waa Real bëgg daal plutôt moom la Juventus bëgg a jënd ndax kii di Dybala day dem Asensio ba matu day dem fa nga xam ne Juventus et aussi Haaland Allende nag le sélectionneur de son équipe ah Norvège nee na moom actuellement kii di Haaland moom xam décision bi Haaland jël mais moom du ci wax parce que loolu décision bu Haaland waxal boppam la mais également am na jox na ko Dani Olmo actuellement aussi joueur de Leipzig waa Barcelone ñi ngi waxtaan ak moom l'attaquant Dani Olmo le joueur de l'Espagne moom fi mu Barça ñi ngi woy depuis ay semaines selon les informations di waxtaan moom Barça également fi mu ne nii ngi bëgg waxtaan ak directement ak Chelsea ndax ki di César Azpilicueta contrat bi jeex na Barça nañ même paré nañ bu fekkee né sax balaa jour dem libre ñu jënd ko ñom fini mu nek loolu seen bëgg-bëgg et Trent Alexander-Arnold gars yi mi ngi jogé ci blessure donc prochain match Liverpool peut-être de jouer mais mom il a avoué son amour pour le Barça nee mom gannaaw Liverpool Barça mo équipe parce que Barça mom Liverpool ñoo bokk philosophie dañuy former ay xalé yu ndaw di leen yóbbu ci équipe bu mag bi pendant ce temps également ki ngeen gis ni di Juli maintenant des rejoindre li nga xam ne le Rotten sans flamme ak RMC pour nek consultant fofu non Ludovic Juli mais si ah gars yi nouvelle bi gars yi nan ngeen di imaginer imaginer leen Sadio Mané nan lañ ko war a accueillir foofu ci Liverpool fi mu ngi naan Salah noppil maay sa bàyyi gars plaisir de vous servir jaa ngeen jëf.